solidarité ku le président président République dafa gëm solidarité dafa gëm ndimbal ndimbal transport parce que avant euh, kit alimentaire yi di milliards 250 millions de jël transport transport interurbain transport urbain gaaru ceer yi bàyyiwuñu kenn chauffeur yi rek chauffeur yi andi kit alimentaire 14400 alimentaire nous ngi koy un milliard loolu nag gaaru jox nañ 582 kits alimentaires kit bu nekk am nga valeur 66 000 francs jàpp naa loolu loolu ndimbal la bu président 8 millions jox ko 67 millions de francs CFA dugg nañu ci gaaru Thier yi nga région de Thiès, région de Thiès gaaru département de Mbour lu mu néew-néew am 23 millions. loolu lu ñuy saluer la lu ñuy rafetlu la waaye day wane ne entre chauffeurs yi ak transporteurs ak état dañu war a lëkkaloo bokk ndey bokk baay parce que transport dafa am solo ci àddina dafa am solo aussi ci Sénégal émergent loolu yàlla def na wax dëgg yàlla man dey ci jàpp wàccoon naa ak euh, déclaration de patrimoine boobu